ba ca ba ca jiitu mooy li nga xam ne moo fi xewoon kaddu yi fi jib yëpp ñaawal nañ ko te kenn ku nekk dégg na aussi li nga xam ne moo ci position bi nga xam ne tey wax nañ ko ci cérémonie bi nga xam ne ci la ñu ci la ñu jóge kon loolu mooy li nga xam ne mooy mooy li jiitu ñaareel bi bu ñu tiré conclusion yi mooy aussi ñun ñëpp muy toute la coalition benn Bokk Yaakaar te tey jii élus yi dajafi maire yi dajafi fi coordonnateur zone yi daje fi les grands responsables daje fi ay militant dajafi ñoom ñëpp nee nañu ñu ngi feddali seen coloré ak seenu jàpp ci président Macky Sall ñoom ñëpp aussi maase nañu ne. président Macky Sall la le benn Bokk Yaakaar du département de Mbacké mooy seen candidat en 2024 moom la ñu investir ñoom ñëpp maase nañu ne pare nañu pour le grand meeting régional d'investiture ñu ngi déglu la direction du parti ban xool yan consigne lay joxe pour ñu respecter ko loolu mooy li nga xam ne mooy ñaareelu kàddu bi ñetteelu kàddu bi mooy ñëpp wax nañu ne war nañoo xool naka la ñuy structurer sunu ànd naka la ñuy fekk ba nekk kuréel ñu ne kon jël nañu décision ñun ñi fi daje di la l'écrasante majorité de la coalition Benno Bokk Yaakaar muy allié muy élu muy ministre muy maire muy grand responsable ku ku li xam parti bi tey xam nga ne li fi daje foog naa ne yéen journalistes yi vous en êtes ñoo ñooñu décidé nañu créer benn cadre boo xam ne dañ koy tuddee la coordination des responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Mbacké danañu daje weer wu jet def ay réunion tëral benn plan d'action dem dans les zones de Touba dans la commune de Mbacké dans la commune rurale fenn fu nekk ñu dafa mën ay action d'animation pour préparer les élections de 2024 donc day mel ne loolu mooy ñaareeli ñetteelu poñ bi yaakaar naa ñeenteel bi mooy exprimer nañ fi nit ñi nu ñu bëggee ku leen jàppale loolu président mi ngi ci kenn ku ne gis li nga xam ne noonu jàppale gox yi ak gox goxaan yi li nga xam ne def na ko ci ay réalisation tey rek si dellusiwaat nañ ji loolu foog naa bu ñu fi doon toog di ko lim fii ba bët set du des waaye xam nañ ne aussi am na ubbi goo xam ne mi ngi commencé am ci ay nomination yoo xam ne am na ci dëkk bi wala ci département bi yoo xam ne mosu fee am kon la ka des itam nañu rafet njort ndax am na yoo xam ne mi ngi ci aw yoon waaye loolu nañu xam ne jàpp nañ ko te ñi ciy dox ñi nga ciy dox mënoon ak séq ay kilifa di ko weer ci mbedd waaye li ñu leen ñaan mooy yéen ñëpp ngeen am confiance xam ne yéen ji xam ne am nañ ko ci yéen ak cofeel gi nga xam am nañ ko ci yéen lépp luñ man ci jàppale leen ñi ngi ci woon te ñu ko yokku ndax ab soñeekat lu am solo la ci ab ànd ndax day tax nit ki gën a góorgóorlu kon Baye Mor Ndiaye dama la jox su ko defee yow itam nga ñaanal leen ñëpp.